sa jëkkëru Mia Guissé def na benn post ci Instagram am ne tontu baa ngi ñëw commentaire yi ñu ngi koy wax lu ne garaaw bu ma sañoon nga bàyyi mu sedd jigéen la nga bañ koo topp quoi suturaal ko ndax ñu bëri ñu ngi naan da koy dóor da nga koy mal maltraité alors ko ñoom li muy wax wóoru leen parce que li tax nga fase ko yéen ñaar rek ko xam kenn mun ta dem ba ci biir moo tax nit dafa war a maandu mais suturaal ko nga bàyyi mu sedd ndax jigéen kenn du ko topp waaye Mia Guissé da nga war a bàyyi sa interview yu bëri yi yaa ngi dégg nit ki bu ngeen tàqalikoo jeex na mais toog ci plateau bu la dee laaj journaliste ci sa clip nan la laaj ci sa clip ndax la yoon la ñu invité la ndax génne nga clip bu bees mais pas sa vie privée ngay tararari rek loolu tamit neexul ci kor da ngeen doon ànd ah yéen ñaar ànd ba jeex na mais nag ku ne jàpp sa bopp mais toog ci ay plateau di wax di wax rek man du ma hypocrite de ni ngeen di jàppee Mabou di ko xas man du ma def loolu de. na ko bàyyi que jigéen la mais moom tamit interview